jàkka jàkka Maodo bi ci Tiwaawan euh, dafa am lu ci dammoon ñu ni nañu woo seeni gay mu defar ko Sëriñ Babacar ni nañ ko compal ci bàmmeelu Maodo ñu compal ko mu def ca la mu ca def dinañ ko def ci ndox bu sell jox ko seeni gay mu sangoo ko sog a defar li ci yàq te ki tëdd bu ma ko yëg